live bi lu mu wax yëpp kenn nettali lu ma ko nit ñi daal kool nañ ma rek ñu ma demal nga dugga ji nga seeti Ami Jobe mu ngi laa saaga si TikTok bi ma dugga si TikTok bi ma dem ma seetaani façon saaga bu ne saaga na ma ko si TikTok bi waaye waatal naa leen si màggaayu yonent bi ak yàlla Ami Jobe tey la mooy gën a saaga man alfaade de xaw ma keneen de waaye man Alpha tey la ma Ami Jobe di géej a saaga tey la maay géej a man alfaade de xaw ma keneen de waaye man moom tey la may gën a saaga géej xawma ko gis nga nit nit maandu lu baax si doom aadama la defuma vidéo ma tudda Ami Jobe aw ma benn vidéo bu ma musa def ma tudda si Ami Jobe loolu musuta am benn vidéo bu ma musa def ma si Ami Jobe musuta am musuta am lu dut xam nga sax nu ba gars yi ñu ne ngunu ngunu xaalaani goonga damaa leeral rek ma leeral ko mu set sax lu dut benn bés laa toog fii di wax ak Hadi Konte téléphone Hadi Konte mu ne ma Alpha ma ne ko naa mu ne ma ba léegi amaguloo jabar ma ne ko Hadi Konte amoon naa amatuma mu ne ma he am na suma benn sista de jigéen bu baax la kaay ma booleel la ak moom Ami Diop ma ne ko kan mooy Ami Diop mu ne ma daf dee nekk si TikTok bi ak Facebook bi ma ne ko xadi konte mu ne ma naam Modou Moussa misal mi nii ma mi juuri maama no bete mu ne mu ne ko mu ne ma daf dee def TikTok daf dee nekk si Facebook bi ñu ngi ko ooyee Ami Olof mu ne ma suma sista bu baax la xadi konte de ma ne ko xadi konte mu ne ma naam ma ne ko foo jëlee wax ji delloo ko fa bëgguma ma ne ko bëgguma kii màggat la barke yonent bi Khady Konté su fekkee ma xam ngeen dama doon nobba turam bi sax de waaye ma xool ne nii affaire si nobba nobba yii yëpp man loolu duma si dee dugga man nii rek ma ne ko kooku màggat la bëgguma ko ma ne ko foo jëlee wax ji delloo ko fa bëgguma ñeneen ñi kenn ki bëggoon naa dugga si mbiram parce que bëggoon na maa laal si Facebook bi buggoon na maa laal si Facebook bi ma bëgg ma bëgg a ñëw respond mu delete posam yéeg yëpp Khady Konté tamit mu propose ma ñeneen ñaar mu ne ma diw ku baax la ma ne ko bëgguma mu ne ma diw ku baax la ma ne ko bëgguma ma ne ko Khady Konté man kilifa laa Adama Joon xam ngeen déggal Adama Dione mu ne ma siis yow Gambian sista sa Gambian sista su duggee si Facebook di la wax ne yow doomi xaraam nga yow nit ku bon nga yow nit ku xalaku nga koo xam ne nii sa Gambian broda di nga ko traité like that nañ leen yow waxante dëgg waaye yéen tam bàyyi leen ñuy bàyyi leen di sukkur <laughs> bàyyi leen di di sukka affaire si sa Gambian broda ak sa Gambian sista da nga koo ñoom yoon yuñ nekk si mbiri TikTok bi man nekkuma si mbir yooyu noonu thousands of videos man maa gën a mun a def vidéo loo gis man jine vidéo man laa understand ngeen waaye sab Gambian broda tey mooy ñëw fii mu tegal la si kanami aduna bi ba nga bugg a dee mu sosal la wax la wax yu bon su ko defee léegi nag nit ñu ñëw ñu ne leen hee ma ne yow kilifa nga waaye yow passé nga yii nii yow bul lifin waaw yow bul respond non Alpha Souley waxuma ne dafa omiya dafa dof wala dara de bàyyi ko rek dina xam kum koy jëflanteel kum koy jëflanteel war naa leen ko fi leen mi repeat it very clearly du ma yàlla du ma yonent bi su bàyyi du yàlla du yonent bi waaye nag yàlla moo wax ne ku tooñ kuñ tooñ damay far ak moom ku bégal nit lum la ñaanal dinaa ko ko defal parce que danga ko bégal yàlla moo ko wax de mu ne damay ña gaaw nangu ñaani ku tooñ yàlla moo ko wax te man tooñu ma ko te xam naa ne óor na yàlla ak yonent bi tooñu ma ko amul fenn fu ma mun sa tuddee ami Jobe waaw amul fenn fu ma mus a tuddee Ami Diop Alpha Souley ñu ngi nii suma tooma mu ngi fii suma sëriñ suma mag yi Modou Moussa yi yëpp ñu ngi toog fii di seetaan suma sista bi ñoom Aysatu Jaamanka yi ñëpp ñu ngi toog di ma seetaan Modou Moussa yi ñoom mu taariin ñi ñoo ma yar suma jikko bi xam nañ ko de xam nañ suma jikko bi de man keneen koo xam ne nii ku dul ñii ñoo xam ne ñoo ma yar su leneen loo mun munti wax si suma mbir dangay wax ay wax yu tooy xet ay nar yu tooy ngay wax man suma Facebook live bi dama leen ko dee wax de Mutar mu ngi nii de moom ak Modou Moussa yi ñoo a yar maa ngi nekka xale depuis bu ma juddoo be ma em nu ma em nii euh, si lañ tàggoo ñu dem kii dem Amérique kii ñoom kii dem Finlande Alpha Souley dem Jamani ñun ñoo bokk ñu nekk musuma toog ba ma génn fii ma wax ñoom Modou Moussa wala Moutar ñu ne ma Alpha Moutar yow dimbale ñu danga mun a fen xam nañ ne fenkat nga déedéet démba rek am na ku ma kool di ma wax mbiri Modou Moussa ma ne ko xam nga man maak ñoom Modou Moussa ñun Kër no dañ am benn tradition ma ne ko tradition buñ am mooy ñun stage by stage lañ am ma ne ko maak ñoom Modou Moussa ak ñoom Moutar duñ dee mingul because ñun morom par morom lañ dee àndee ma ne ko Modou Moussa yi Moutar yi ñoom Modi Kébé yi ñooñu noonu ñoo nekk a maas ñoom ñoo maase ma ne ko ñoo dee ànd ma ne ko ñoom général ñoom Bala ñoom mustafa Fati ñoom ñoo bokk jamono ñooy ànda ñoom Bokar ñoom Ibrahima Mbutili ñoom ñeneen ak ñeneen ñoom ñooñu noonu ñoom ñoo nekk génération ñooy ànda man ak ñoom Alpha Souley ñoom Souley Sowin ñoom Saybe ñun ñoo maase ñooy ànda ma ne ko duma dee mbingul ak ñoom Modou Moussa yi parce que ñoo ñoo ma mag torop ma ne ko waaye yàlla def na nag depuis bu mu nekkee fii dañ dee déggoo bu baax a baax a baax bu tukkee dañ dee koolante toujours dañ dee ma ne ko dañ dee koolante bu baax a baax a baax ma ne ko am na ñoo xam ne ñoo dekkoon fii ñu ngi bitim réew duma ma dee wax ak ñoom téléphone du ma leen dee call Alpha Souley mu ngi nii every day almost ñu wax téléphone walla mu call ma gis nga nit ñoo bokkal dëkk ak ñu la yar ñu ñoo la xam keneen ku la wax ne xam na la ku dul ñooñu mu ngay wax ay fen yu dul yu tooy xet wala ñoo xam ne nii da nga defandoo nag ñoom nga bokk ak ñoom fii yow man suma doomi xaraam yaa loo si xam su man xalaku yaa loo xam ami jóob gannaaw yow yaay nit ku baax yaay doom ju baax ji man maay doom ju xalaku ji yi man doomi xaraam laa yow yaay doom wu sell nañ dem ñu seetaan lu si kanam rawut bët du askan wi ñu fi maa ngi fi yaa fi lu ma la wax daal ñaar yooyu du jaas benn man alpha ma toog ma dee ñu ne amu Diop dootul saagati Alpha dee na te su jaasee lu pël yi laxasoo ba naan ko ma toog daal ma dee ñu ne waaw Alpha dee na Amou Diop dootul waxati mbiri Alpha dee na fàtte nañ ko ku ne dina dee waaw loolu daal fekk amul maa ngee dunda yaa ngee dunda di nga toog si tiktok bi ba di nga bàyyi tiktok ba nga màgget ba nga sax ba jaww ba nga xubbi daas su su la nit fayoon one million si mu ne la demal saaga alpha doo ko saagati su la nit fayee one million si mu ne la demal nga saaga ji alpha doo ko saagaati bii mooy force te bii mooy nekka laas si suma sayit man xaw ma keneen de kenn tanewut kenn seddal xol ñu amul ñaar ñun ñëpp ñoo maase foo ko déggee seddal xol ñu amul la waaw kenn gënul fi kenn foo ko déggee seddal xol ñoo xam ne nii ñu amul la ñu nekk ci suuf ami joo billaahi wallaahi tallaahi billaahi wallaahi tallaahi waxuma la dara de waaye sa génération ah ku xamut xamut ku xamut xamut dama la wax loolu nag ma adresse la very serious adresse laa la adresse ci Facebook live bi nga distance sa boppa ci suma affaire very serious adresse laa la adresse ci Facebook bi live nga dem si sa TikTok bi man live laa la adresse distanal suma boppa si sa affaire ba wax la loolu noonu suma mbir xëjul si yow you are very little bal wax naa la balaa ma gën a mun a kontaan juróom fukki góor ñu boot la juróom fukki góor ñu boot la xeex bi gën a mun a neex Moutar mu ngi nii di seetaan de Modou Moussa mu ngi nii di seetaan de Alpha mu ngi nii di seetaan de ñooma yar maag ñoom ñoo bokk benn dikka buñ yaroo laaj leen kuy suma baay si xeex la juddu ba màgga si xeex te dunda na juróom ñeneen fukki at ak juróom ñetta musuta xeex ak nit ñu ne kii dóor na ko du waliw du keneen façon ngi xeex bu ne xeex na ko laaj ko ñoom Modou Moussa ñu ngi nii de ci Facebook bi de soo xamul nit xamuloo ko soo xamul nit xamuloo ko man si këri xeex laa juddu këri xeex si laa juddu ma yaru si magasi doon na ko it nag doon na ko laa def nag man maay eveready man dama ko de suma bot bi amul lu mu ragal si àdduna xanaa ku tooñ dama dee ragal ku ma tooñ de ku tooñ koo xam ne man maa la tooñ dama la dee ragal parce que dama dee xam ne loo ma def mun na maa dal loo ma ñaanal mun naay nangu si suma kow koo xam ne ni daal man yaa ma tooñ man maa la tooñ loolu moom dama ko dee ragal dama ko dee ragal de waaye nag neexaay internet bi su la toppee ba nga ne ku mel ni alfaa ngaa toog di ko saaga dama laa wax lu wer lu du deñ man duma góor bu jigéen di toog di ko saaga si internet bi jàmm indu mu fanaan kon man ma nekk doomi xaraam man man duma nekk jigéen ku mooy toog si internet di la saaga wala di la toog di la def naka su du noonu jàmm mu ind mu fanaan duma façongi nit yooyu ma wax la loolu ami joom nga dégg ko bu baax a baax a baax su la neexee na nga dem opto di yow fourth generation waaye wax naa la ne onga pol si guuxum soow xeex bi na commencé na tey askan bi seetaan lañ am seen bodi ak déglu nañ toog ñu seetaan ñu ñu déglu ñu lu si kanam rawut bët yoon su jeexul waxu sil di jeex gannaaw daal ñu fi gars yi ñu ne ku yàgg a dunda fekkee ku yàgg dunda fekkee alpha musuta wax turi ami Jóob xaw ma ami olof xaw ma ami naka nga ñëw dugga si sa tiktok bi façon saaga man su ma waxee waxuma la ñëwal dugga suma Facebook de waxuma la ne ama ndongo aɗa anndi onon ɓe ceernaaɓe ko noon yakke leydi ndi an a wiyani kam fadomi lappanma mbo korte aɗa korte wiya kam accu hoɗum accanmi an min mbiɗa jooɗo ɓiɓɓe fattuɓe jooɗo ɗo ɓe yaɓe jooɗo to gawo internet ɗo kala ƴattiɗoma ɗo a waɗani mbo e puune ko an waɗi ɗum kala jooɗiɗo ɗo e, o internet o ƴattiɗo gorko ko hemaɓe yii ɗum bayilen mama adresse ko li nekkul mbir moo xam ne nii lu ñuy wax ne bàyyil mu dem bàyyil mu sedda bàyyil mu jàlla gis ngeen tooñ yàlla bëggul ko nu yàlla ñàkk a tooñ ñun doomu aadama yi yàlla gën a xam lu baax si ñun bi bu ma ko defee am na suma taalibe yu bari wax nañ ci mu yeeyu ma si yàbbiwu ma si mi waɗan boye seedere kay modou moussa ko ɗum ɗon mi waɗan boye seedere min kay woppumbo rek yontere ha yontere arta ñande fof mi lappan bo dafuji ñande fof temi temi temi temi temi hono wiyete dafuji ɗi kay ɗin ɗon moom min mi jonniri yamilore nde ko honno neɗɗo joɗoto internet joɗoɗo haɗa wiya neɗɗo ne an ka ɓi fattu an ka ɓiɗo haram an a balkinani a waɗani tekki dara an ka halkiɗo yimɓe ɓe jooɗo ɗo ni ndeñi took fi ñunela nde xam nga luma ko muna waxe si pol sa suma luma ko muna waxe noonu si olof sax ni toog fii si biir internet taal toog tiktok am toog fii di wax ne nii nit ñi di toog di seetaan waaw kii doomi haram la kii doomi xaj la kii dafa xalaku kii tekkiwut kii deful nii kii deful nele <laughs> xam nga dama leen dee wax leen na ma ne leen nekk ñaari nit ñu génnandoor mile two doo dégg moom ñu tàggoo ñu ne yàlla nañ fi del si waat déwén saa yu ngeen jullee tabaski daal di ngeen joxante loxo de ngeen ne yàlla nañ fi dajee déwén waaye mile two kenn du fa génn nga ne sa mbokk yàlla nañ fi dajee déwén ami joobi fii la mooy jaaree dootul wax ne alpha dinaa ko saaga waat déwén na ko tes tes na ko tey mos naa ko neex na banaa ko ñu ne amul fen nañ dem nañ dem Gambien ñenn ñenn ñi si Gambien si dañ amee attitude boo xam ne nii dinañ jóg ñu saaga la ñeneen ñu doon dem di ko encourage si saaga yi ñenn si ñoom dina ñëw tamit ñu ne la ne muñal bësal sa xol bi bësal sa xol bi nga muñ góor dafay muñ góor du faale jigéen góor du muñ góor du faale jigéen laajal leen ma Ami Jobe kañ laa toog ba ma mus koy ciis ba mu ne man caga laa mu ne kii caga bu bon la <laughs> mu ne kii caga bu bon la caga bu bon la waaw xaw ma ñaata at la am xaw ma ñeent fukki at la am xaw ma lan la am man suma at yi doo ko xam de <laughs> suma at yi <coughs> doo ko xam de waaw mu ne kii kii caga bu bon la déggal wax yu mooy wax rek nuuru puuj déggal wax yu mooy wax rek kii moo da cagate moo da xalaku maa ngi toog rek di xaxataay maa ngi tëdda fii <laughs> yow suma caga yaa ngi loo si xam musuma laa cees musu ñoo wax téléphone musu ñooy wax ah nga toog rek tey nga toog rek xëy suba rek suma waa ji nga solal ma gaas weer rek téye sa bérey almet di kos rek di taal safara si di jàpp xam nga Europe dafa sedd safara si di tàkk rek yaa ngee jaaru kontaan rek di jaaru rek di wax di jaaru rek di wax di jaaru rek di wax suma caga yaa xamuloo si dara de xamuloo dara si suma caga waaw hmm? su ma nekkee mag mu yàqu loo si xam xanaa balaa ngaa xam mag mu yàqu kay moom wax dëgg moo ne la mag mi kay toog mu ne la ni ah ndaw si yow dee dëgg dëgg dëgg dëgg dee sopp naa la bëggu naa la maa ngi ree nag waaye xamu leen luy dox si suuf moo tax maa ngi ree de waaye luy dox si suuf it xamu leen ko suma taalibe bu mag bi ñëw na Figo Mané mooy suma taalibe bu mag bi suma taalibe bu mag bi moom moom moo wax ne moom taalibe yi moom taalibe yi dañ ko sonnal fan yi waaw moom mu ne Alpha nga ne Onapol si guuxum soow ah Onapol si guuxum soow di koo xam ne ni yaram bi yëpp problème la man nga xam ne nii maa ngi toog fukki at ak juróom xeexuma xeex bu ma bugg a xeex xeexuma ko gune gii mu ne man la mooy ñëw di ma jéem a isil xeex gune gii mu ne man la mooy isil xeex am na joom xamuloo ma doomu aadama laa de waaye doomu aadama bu dangereux laa ami jóob benn boom su ma la ko wàccelee wallahi azim di ngeen ma wuri man suma xol bi moo ma sonal de man suma xol bi soo ko xaree façon yi mbaax gu ne moo fa ne waaye nag lenn doon na naa ko si suma toomaa ku ko def mu def la léegi léegi léegi soo ko defee nga puub sa tubéy loolu si suma toomaa laa ko doon ne te rëccuwuma si dara si génération boobu lañ toll tik foo tak hello hello hello alpha souley min dal mi anda honde saare o woni de kono mi lamdoto mi lamdoto ko honde saare o woni mi anda honde saare o woni man man duma de pour man am na yenn tooñ moom soo ma ko tooñee wari wu si ma ne la Figo Mané mu ngi nii suma taalibe yi dañ sonnal Figo Mané fan yii ma ne ko Figo toppatoo sa soxla yi man taluma yooyu ma ne ko xanaa dafa am ñoo xam ne dañ gis seen bopp si wax ji loolu man duma ko dee respond ma ne ko toppatoo sa soxla yi fii ko ma ne ko toppatoo sa soxla yow nekkal si affaire si rek demal liggéeyal liggéeyal man maa la jox ndigal nga liggéey liggéeyal ma ne ko liggéeyal rek yow daal bul gestu bul toppatoo ndigal laa la jox nga liggéey daal liggéeyal rek ba fuñ bugg a àgga ñu àgga fa liggéeyal fii ko sëriñ bi jox na la ndigal liggéeyal <clears throat> waaye kii lum def kenn defu ko alfasule o wi ko uk o woni uk o wi ko uk o woni maɗo ñaasi don mayen di attention seekers on facebook maɗo ñaasi nuyunala mm-hmm. we are here for you imam he figo yo kay sofa nekka soma fa nekkalut léegi yo kay nekka fa rek yo continue liggéey bi rek continue ko rek lu ma la wax daal loolu la continue liggéey bi si kaw si kanam rek nu ma la ko waxee woon daal noonu la fa amee si kaw si kanam rek waaw si kaw si kanam rek pakka yi dinañ bari lu bari dina waaye daal buñ teg rek jéggil rek nga dem rek te nga bul si boole wax ju bari salabin mi salminima mi juuri mama mi juurima ɓesgungu ami joob tooñ nga kuñ du tooñ ñu bari dañ ma dee tooñ ñu wari ñu wax ma dara si internet bi ma bàyyi mbir mi yëpp ma bàyyi everything mu jàll fekk dañ ma tooñ parce que xam nga lu tax gis nga nit ki tamit doo mun a nekk si social media bi nga ne kenn du la tudda kenn du la taasu cee sax suma mag lool la ma dee wax wallahi azim cee suma mag sax loolu la ma dee wax mu ne ma ma ne ku binda nga respond ko ku binda nga respond ko waaye soo bëggoon ñu respond la bàyyi Facebook bi loolu la ma dee wax te loolu dëgg la taxuñ maay wax ñooñu taxuñ may wax de binda respond binda respond binda respond déedéet loolu taxut a wax nit ki bul dugat bul dugat si biir nit ki mel ni yow danga ko xam aha Alpha Souley owi Scotland jërëjëf moo njaay jërëjëf moo njaay mhm. jërëjëf moo njaay mhm. jërëjëf moo njaay Scotland man de xaw ma keneen de waaye man moom lu ma mun dinaa ko def de xaw ma keneen de waaye dootul ma saagati de man dootul ma saagati mun munti nekk nag <clears throat> Eh, Tidiane Samb yow bàyyi rek wax naa ko liggéey bi tey la ñoo commencé xeex bi tey la ñoo commencé xeex bi tey la ñoo commencé xeex bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Alpha Moutar Ba. ah. hono alhamdulillah. mbaɗa jam tan woni toon. aye o mbaɗa yejitani bo wimami o <coughs> ko kanko ƴatti kam ga internet kalla mansa moussa fine fine alhamdulillah waaw ban date ak ban date la waaw 23 fata feñi okay so on the 23rd ak ban bés March 6 Event Garden mm-hmm. ok waaw ok léegi kay léegi na affaire ñëw rek lu ma la waxoon rek waaw su ñëwee daal moom ma gën a concentré si affaire yi xam nga nga ne gaa yi gars yi ñu ne bukki yàpp du koy tax a dem liggéey waaye daf koy gën a sawarloo si yoon wi ok waaw baax na ok waaw maa ngi Facebook live su ma paree léegi dinaa la kool duma ko liggéey duma ko def dara waaye dinaa ñaan su fekkee moom a tooñ ren ba déwén yal nañu ko yàlla woon su fekkee man maa ko tooñ ren ba déwén yal nañu ko yàlla woon xam nga toog fii di wax ne dinaa liggéey nit man loolu duma ko dee def de man ku tooñ ku ma tooñ rek ni man daal am naa am naa fu may jaar te yàlla dinañu àtte nga ne dangaa xeex tey la xeex bi di commencé nañ dem rek di nga xam ne nii koo xam ne ni atomique bomb la ame ak koo xam ne nii foti 47 la amee duñ mun a xeex ku amee atomique bom nga ne kooku ngaa xeexal ko ame nuclear weapons nga ne kooku ngaa xeexal nañ dem moo tax ma ne la bàkk nga jaag bàkk nga jaag bii si bii lay dakkee pour nga saagati alpha mutal billahi wal kitaab bi si bii la moo dakkee yow Ami Joob defuma waxu waxuma la xawma la ma ne yaa ngee dunda man dama lijjanti yow sa mbir wala dama lijjanti ku mel ni yow exemple wax naa leen ko fi bu yàgga ñii di toog si internet bi di saaga nit ñi dañoo dañ war a set exemple si ñoom ngeen weddi ma man nag du ma xeexal kenn xeexam de waaye su ma xeexee boppa mun naa koo xandulal suma boppa bu dëgër mun naa koo ameel suma boppa bugguma ku ma ci dimbale bugguma ku ma ci leneen bugguma keneen ku ma si lifinal sooy xeex di uti ndimbal am na loo xam ne ni yow xëy na xeex booy dugg a ñemewuloo ko wax naa leen ne jigéen su toogee ba toog di wuñu yab góor dof bu jigéen wax naa leen ko dof bu jigéen moo koy faj daf koy dóor ba pare mu doxaan ko fii ku fi toog di dof dof lu fii di fi kankurang kankurang lu si Facebook bi fii di fi wane ne yëfi dof dama leen ko dee wax fii ku fi dof dof lu fii ba mbaam mbaam lu fii ba toog mu wex la fas fas loolu rek nga toj kanamam bi yow itamit ku fi def boppam mbaam mbaam mbaam lu fii ba toog mu wex la defal sa bopp fas rek nga wex ko si kanam moom itamit kanamam bi toj bor bu set ma wax leen ko fi lan mooy problème bi ku jog si internet bi rek nga seet ku la neex rek nga tuddal ko ay yaxi maamam nga sulil ko yaxi baayam yi nga sulil ko yaxi ndeyam yi nga toog nga saaga ko ba mu neex la nga saaga boromam man bañuma ku ma saaga de su ma la tooñee saaga ma man maa saaga lu suma boppa nit su tooñee suñ la saagee yaa saagalu sa boppa dañ leen ñu waxante dëgg yi su ma fi toogoon tey ma tudda fi Amie Jobe ma wax ko lu nekk mu saaga ma maa saagalu suma boppa maa saagalu suma boppa de su boobaa lu ma munti def fii ma nekk fii du ko tudda fii wala di ko fa wax yeneen waxa su ñëwee si internet bi su ma saagee maa saagalu suma boppa moo tam olof yi dañ ko dee wax mag na xam boppam xam sa boppa ñoo gën ñu oo la wax la ko de moom tuddul suma tur de déglu leen man ma leena leen leen de dafa jël suma vidéo di ko play di play vidéo bi di saaga di play vidéo bi di saaga di play vidéo bi di saaga ko layin o tañno ah? a tawa aɗa juulanno aɗa andi ko sohlumi so on juuli tisuban ha on paari talibaɓe si jooɗima anniyanoɗa mi anniya o mon komin waɗata mboɗo a faami anniya o komin jogii mbo komin tooñaa taalibaɓe fof diñanan ɓe ɓe kam anniya ɓe janngana kam dafu mo kala laabi tati ɓe anniyo mbo ami job scotland ɓe anniyo hen dafu yimi de jalbu jalbu ko jam mi sohlani jam yoɓe anniyanom hakkude am e makko nde nge toñangue nge o tooñi kam ɗo woni ɗo scotland yo allah hollumbo ko annduɗa ni sumowaji toñɗo neɗɗo kono kono allah hollata mboni yo allah hollumbo ɗum si tawi komin toñimbo kala ko annduɗa ne koko boni ne yo allah rewnu ɗum he dow am a faami duwa o noon sohli o waɗe hannde hannde ga ñalawma janngo jamma si jamma waɗe janngo subaka yo o waɗe ɓaawo janngo yo o waɗe subaka e jamma e ñalawma yo waɗe ɗo dal ɗo ha ñalngu aljuma jamma yo o waɗe woto o acce yo allah dal allah yo rewdam hakkude am e makko dal si allah jaɓi eyyi talibaɓe dal tumande ɓe janggi ha ɓe paari foof duwa o yo waɗe jamma e ñalawma e subaka noon si ɓe janngoyi subaka yo o waɗe dafu bisimilah xeex bi na commencé tey ñu seet xeex bi na commencé tey ñu seet mhm. na xeex bi commencé tey ku fee toog fii di vagabond lu vagabond lu si biir internet bii di fi kat takka kankurang di def sa boppa jàmbaar nga toog rek nga xool nit rek neexul la rek nga toog rek nga ne xaaral ma takkal ko Facebook di buddi di ko buddil ba nga doyal nga saaga ko ba nga wax na su fekkee ne nii maala tooñ su fekkee maa la tooñ laa wax de lu ma ko wax lu wér la de su fekkee maa la tooñ lépp lu bon loo xam ne nii ñaan ñu ngi koy ñaan na ñaan bi ñëw si man kati lemoon loolu la lan ngay saagee nit understand nga nga toog takk Facebook live nga saaga nit sa xol bi sedda lu ma ko wax lu wér la lépp lu ñooy ñaan si ñaan bi su fekkee lu bon la wala man maa la tooñ yàlla na yàlla isi ñaan bi si suma kaw te ñaan bi dinañ ko continuer suba be bëccëg ngoon ba ajuma su fekkee lu bon la na ñëw si man wóoriwu ma su fekkee maa la tooñ su fekkee yow yaa ma tooñ na ñu ñi toog ñu seetaan ñu wax naa leen ko aduna bi yëpp nañ toog ñu seetaan ñu reen ba déwén di nga xam ne man taalibe laa maa la gën a nekkat man bañ naa ko ba jànguma school angale zéro yu gën a bon man ko man mun te duma la ko def wax naa la ne am very good in terms of fighting am very good in terms of fighting nit ñi suma positive side bi lañ dee gis man xamuloo ma si xee eh? dama ko doon na lu ma nampala ma doon na ko billaahi wal bi dama ko doon na laajal ñiy toog fii di ma seetaan ñu ma juddoo ndoor dëkk nga laaj leen kii kan mooy baayam wala ñu dëkk Medina Serigne Maas nga laaj leen kii kan mooy baayam xeex dama ko doonu de dama ko doonu de dama ko dee wax de underground fighting nag laa gën a mun underground fighting laa gën a mun nag underground fighting laa gën a mun loo gis ci àdduna man dama daan xëy suba ba ngoon lekkuma naanuma maa ngi one place to the order one place to the order xeex eh, dama ko donn wax naa la ko su ma xeex na xeejut si jigéen toujours su ma fi buggee jotee jigéen loolu laa leen dee wax bàyyi leen ma because nit ku nekk xam nga lan nga capable nit ku nekk xam nga loo capable ak loo capable yàlla bëggu tooñ de toog alpha kii góor gi moo da xaj góor gi moo da doomi haram góor gi moo da caga aka moo cage aka moo cage caga bi sax boobu naxariwul ma góor balaa baax nga cage boobu moom naxariwul ma wax dëgg moo ne yàlla boobu da boobu dafa fone si man nag naxariwul ma parce que góor balaa ngaa baax foog nga cage nag loolu moom soo fi amee jëkkëri imaam wax dëgg moo ne yàlla te fekk nag moom am na yoo xam ne mënul koy yow doo gis sa boppa si néegi sëy bi waaw doo gis sa boppa si néegi sëy bi boobu moom boobu dafa foni si man nag mu ne kii ak moo cage kii kii góor ab caga <laughs> jigéen ñu baax ñi du góor ab caga la ñoo wóor jigéen ñu baax ñi góoral caga la ñoo wóor di dañ warul kay góor goo xam ne dangaa am jabar di dem di cagatu ji si biti loolu moom waruñ ko moom loolu moom jigéen bugguñu boobu boobu jigéen ñi bugguñ ko nga dem ba pare takk jabar ba pare di cagatu si biti boobu gaa yi bugguñ ko jigéen ñi bugguñ boobu bugguñ boobu de waaye lu ma gën a yi mooy daf daf daf ma dugga xam nga lu ñoo wax dugga daf ma dugga xam nga lu gars yi di wax si suma boppa bi la eggee mu dugga ba si suma cati baaraam yi mu génna mu dugga si suma tubéy mu génnaat mu dugga si suma tubéy mu génnaat yow su ma nekkee doomi xaraam <laughs> dama loolu loolu yow mënuloo koo xam ñu ma juddoondoor dëkk ñoo mun a wax ne alpha mii doomi xaraam la man dama niru suma baay de man niruwuma suma surga baay man ku ma gis si internet bi daf ñu bari dañ ma dee jaawale ak ngir niru buñ niruwuma dañ mel ni siix ku ma gis si internet bi dafa wànde nii kii ak cee xanaa kii cee la wala lan la ba ñu bari dañ ma dee jaawale cee ngir niroo guñ niroo man nekkuma doom yoo xam ne nii nit dina toog mu gis la mu ne la ne ah yow niru nga sa surga baay bu fi nawetoon déwén de daaw de sa surga baay bu fi nawetoon daaw niroo nga ak moom de man duma doom yooyu man dama niroog suma baay niroog suma yaay wala ñaari pitax yu ñuul ñu jur pitax bu weex bokkuma si ñooñu bokkuma si ñooñu man suma mag yi koo gis si ñoom suma mag yi rek da wax ne nii kii ak kii sii lañ kon soo toogee nga ñëw fii di ma wax ne nii doomi xaraam laa doom ju bon laa nit ku xalaku laa man tekkiwuma dara man doomi xaj laa lu ne nga wax baax na yàlla yàlla mu ngi nii askan bi ñu ngi nii facebook yéen a ngi ni tiktok a ngi nii seetaan leen maag ami jo seetaan a daq si ndaje wuré wi dem na kéng nañ leen dem nañ leen ñu dem seetaan leen ñu rek mu ms mi koolay ma noon kii kii de mbi mis kool maawo mi da biisi ñii ñoo ma xam <laughs> ñoom ms yi ñii ñoo ma xam nit balaa ngaa mun a wax si moom nga xam ko man bañ naa ko ba su ma demee si biir dëkk bi fii ma dem sax ba dajee ak géwél nga bugg a maa woy dama laa wax xamuloo ma parce que xamuloo kuy suma baay ak suma yaay hello maa ngi nii rek déedéet déedéet déedéet non maa ngi nii kër waaye maa ngi ñëw génn ci kanam tuuti rek mm-hmm. ok all understand ngeen dama ko dee wax fii Facebook bi ba Facebook bi daaj daj amul kuy toog si Facebook bi mu ne Alpha mus kool fii mu ne ma may ma nangam amul kenn ku toog fii mu ne Alpha mus na kool mu ne ma lebal ma nangam amul kuy toog fii mu ne la yónnee naa Alpha xaalis mu labaj suma xaalis bi mu tappale ma amul de parce que soo nekkee si social media bi dafa am yu bari yoo xam nii ay yëfi ñoll yii distance sa bopp distance sa bopp waaye Ami Diop soo distanul sa boppa si man di nga destroy sa carrière billahi wal bi soo distanul sa boppa si man dinga nga sa boppa xeer ak nen duñ boree xeer ak nen duñ boree dama laa wax lu wér xeer ak nen suñ jaxasoo rek nen yi ñooy toj ku nekk nag xamuloo lu la sa yaay bootee xaw ma lu la sa yaay xamuloo lu ma suma yaay bootee dëgg la de ku nekk lu ko yaayam bootee yaayam moo ko xam Ami Jóob man suma yaay daf ma boot ba pare ma boot suma boppa suma yaay daf ma boot ba pare ma boot suma boppa gannaaw nag nga ne da nga vulgaire suñu waxee rek ngay lakk ay faana faana yu rëy di wane ne ku fonk sa cosaan nga ba faana faana bi ñooy tooñ faana faana nit ñu maandu lañ maag ñoom ñoo dëkk dëkk bu ma dëkk dëkki faana faana la tool yu gën a bari ci dëkk bi ñun ñoo ko moom dëkk bu ma dëkka tirikota dëkk bi yëpp ñun ñoo moom tool yi ñu ngi dëkk ak ñoom lu mu juróom-ñaar fukki at ak lu teg benn meetar yi suuf musuñ koy laal si suñ tool yi amul dara lu ñu musa def loo xam ne nii lu ñu rong la ñu ngi dëkka dëkkin bu neex Medina Seri Maas olof yi ñoo fa uppa suma ma tool yi bàyyi ba ñu ngi Medina Serigne Mass suñ kër gi ba mu ngi Medina Serigne Mass benn meetali suuf jógut si suñ tool yi at mu jot ku ñu neex la jël tool yi ñu abal la ko nga dem nga béyi fa ñu ngi dëkk ak ñoom dekkin boo xam ne nii mun naa laa wax ne léegi mu jege téeméeri at xam naa fana faana yi de xam naa olof yi de jikko boo bugga jikkoo jikko boobu du jikko faana faana faana faana du tooñ faana faana ñu maandu lañ faana faana ñàkk jëriñoo lañ xam faana faana boo gis direct faana faana goo gis mu bari tappale wàcc na yoonam faana faana boo gis mu nekk tooñkat wàcc na yoonam faana faana xamee wuñ leen tooñ de suma close close close close close close friends yi fana fana lañ waaye dama la adresse serious adresse laa laa jox nag ci Facebook bi bàyyi leen di saaga nit ñi yonent bi wax na ko sariya wax na ko gor kenn du ko xas gor kenn du ko xas sariya wax na ko yonent bi wax na ko nit ñu baax ñi yëpp wax nañ ko surtout nag gor boo xam ne nii waxut la yi taasuwut la duggut ci sa mbir waxut la leneen gis ngeen man foo maa gis nii dama dee pég ñu ma dee méngulal su ma toogee ci Facebook bi ma toog ma gis ne nii ñu bari ñoo xam ne nii xam nga comme lu nit yi di wax dama dee kool nit nit ñi dañ dee koolante fii diw du la laaygal diw du la defal lii Aïda Boss wax na dëgg ah. mhm. mu na dëgg ah. mu ne remember that Almighty Allah does not accept abuse from one human to the other that's the very fact that's the very fact lu daraama yi bari ci Facebook bi bari bari bari bari bari ci Facebook bi yëpp kenn musul maa dégg ma wax ci musumaay takka Facebook live ma wax week bi yëpp ay daraama la aw ma joti yooyu suma yoon nekkul ci suma yoon nekkul ci yooyu noonu ku ma gis nga nekk si problème de ma xam ne su ma waay nga su ma la mu nekkool ma ne la baxal nga ba loolu rek laay mun ma ne la bàyyil di moo yaa ngee toppa wax bi wax bi dafa gën a dem si kaw loolu laa laa advice bàyyil man am na yu bari yuñ ma waxal mosuma tontu si Facebook bi xam nga lu tax gis nga soo tontoo yi ñenn ñi daf dee isi daf dee yokk wax. daf dee wax loolu moo tax yu bari du ma dee wax ay débat ay débat déedéet ay débat déedéet. offended me one time Seny Camara waaw wax ma lan laa la offensé <laughs> Seny Camara wax ma ko lu ma la def Seny understand nga du may wax débat am na problème yu bari yoo xam ne nii romba nañ fii lu bari laa si dee xam rek waaye du ma si dee wax damaa noppi parce que du suma affaire su ma defee suma Facebook live ma wax suma opinion dafa jar Ami Jobe di ma wax ne doomi xaraam nga waaw anasar mu ne but mu ne but Allah also love human who allowed him to be the only judge mu ne her and the hard father let him judge between you and Ami ah loolu laa leen wax fii de man dama leen ko wax de man fu ma cosaanoo ma dëkk fa soo fiilee ne tooñ nañ la man si suma boppa léegi-léegi am na loo xam ne su ma ko fi amee woon léegi léegi léegi léegi léegi mun naa fee dajale ay nit ma see ma ma wax leen ne maa ko tooñ wala tooñu ma ko lu ma wax man lu ma leen wax mooy nañ ma defal yenn ñaan yoo xam ne nii ñun lool loolu mooy suñ tradition nit ku nekk ak sa tradition ñun soo fiilee ne dañ la ofeel wala fiil nga leen it mu ngi lay teg mbugal dangaa dem ci sa tradition su fekkee yaa ko tooñ yal na leen yàlla atte su fekkee moo la tooñ yal na leen yàlla atte léegi nag yéen yéen ay yi ngeen toog ngeen seetaan ñu man loolu laa leen wax de so loolu la waaye su soobee yàlla xaw ma keneen de su la neexee nga saaga ji keneen man Alpha Moutar Ba tey si dimanche bii tey nga may géej saaga si àdduna ma waaw tey nga may géej a saaga si àdduna mosu ñoo gisee te duñ giseeti mhm. dooma mus a saagaati loolu moom manit maa la ko garanti saaga moom dooma ko mus di defati su fekkee maa la tooñ lépp luñ fa ñaan yàlla na jublu si man su fekkee maa la tooñ su fekkee yaa ma tooñ nañ toog ren ba déwén na nit ñi toog ñu seetaan ñu toog ñu seetaan loolu kay yomb na yàlla waaw yombu na yàlla su fekkee man maay doomi xaraam maay doomi xaj maay ko xalaku gi maay ko lii nañ toog rek yàlla dinañ xam ren ba déwén dinañ xam maag yow ku nekk ko xalaku ren ba déwén nit ñi dinañ xam man maag yow maay doomi xaraam wala kan la ren ba déwén nit ñi dinañ ko xam da ngeen a gis nit yaayam baayam takka yaayam si farata mu jur ko si farata mu ngénte ko si farata mu jàngaloo ji ko alxuraan mu yar ko fuñ ko war a yaree ngeen ñëw ngeen téye kooku ngeen ne ko yow yaay doomi xaraam yaay doomi xaj yow yaay doomi lii te bayam dafa ngoro woon yaayam de ngoro bu mooy naqadi nag la baayam ngoro woon yaayam mu takka ko si farata yàlla ak sunna si amaan mu jur si ay doom yoo xam ne doom yëpp dañ <laughs> pitax yu weex lañ tal ñoo niroo nga toog tey nga jàkkaarloo kooku nga ne ko ne yow yaay doomi xaraam yaay doomi xaj wax yooyu man duma ko dee daay jes man du ma dee daay jes wax yooyu wax yooyu du ko dee daay jes man kay sa sa sa ngeen baalal ma si kàddu gi sax sa lofal ndey sa sulli baay sa nangami ndey yooyu du dara si ban yooyu du dara dara dara si ban waaw parce que soo ma ne yooyu noonu moom yooyu man faalewu ma yooyu noonu waaye yow sa lofal ndey waaye yow sa sulli baay yow sa yooyu falewuma ko yooyu du dara si man yooyu ku ma ko wax rek loolu is normal anasar saajal suma beneen facebook bi Alpha Moutar Ba nga kool ma foofu noonu kool <laughs> ma si boobu noonu Alpha Moutar Ba nga kool ma foofu bi bii laa nekk di demee live Alpha photos bii kool ma si Alpha Moutar Ba messenger ay sori jaamanka suma sista bi yow dinañ wax si suuf maag yow suma paree dinaa la kool ñu wax si suuf loolu is normal nit toog rek mu ne la sa nangami ndey man defuma loolu dara loolu diisaluma ko waaye doomi xaram nga doomi xaj nga du man nga saaga de du man nga saaga man de saaga nga ma saaga nga suma yaay saaga nga suma baay number one loolu dafay wone ne yow sa baay ngorowul la si yoon number two sa baay jurul la si yoon number three yow si sa boppa doomi xaraam bi loolu la waaye ah alpha yow kay moom doo kattandeyam alpha doo kattandeyam alpha doo nii dama ma xaxataay ma raay ndoog ma daw dem loolu dama ko faale loolu yëngalul ma ndey faatu gis nga wax naa leen man saa yu ma defee Facebook live am naa évidence ñu Ndeye Fatou Sy mu ngi nii moomaa seetaan moom it buñ ma dalalee ba siin mi moom ñoo bokkoon di daal jàng daara si suma tooma taalibe yëpp dafa am fuñ dee jàngee ji waaye man ak moom Moutar Tine nekk Africell Moutar ka nekkoon Ecobank mu ngi Amérique ñun Moutar yi daal ñun ñëpp si suma tooma lañ dee jànge <laughs> maak moom ñoo bokkoon di jàng foofu luñ fa jàngee ñoo ko xam moo tax ma ne leen doon na naa si suma toomaa lenn soo ko defee mu def la pour nit def ko mu ne damay xaar yéen ba déwén déedéet suma toomaa du boobu nit def tey gis tey yàlla mayoon na ko loolu nag du doon tooñ suma papa noonu la meloon du tooñ waaye kum jote loon kum jote loon a ah. ay si chef chief yu ko defoon si suñ gox bi ay gouverneur yu ko defoon si suñ gox bi ay sëriñ yu ko defoon si suñ gox bi sëriñ yooyu noonu yëpp fuñ mujjee xam nañ ko te dañ waxoon ne suma baay mooy njëkk moo le réew mi yëpp waxoon nañ ne ñu ne suma baay dina dee si jotee bi si jote yooyu ñu ne dina dee dina dee xamut ñooñu yëpp dee nañ ñu bàyyi ko fi moo tax ma ne ko ne on a police guxum soow on nit ku mun a xeex ku doonu xeex nampu xeex man dama bari affaire ba nit ñi xam nañ ne dama bari affaire mbaax a nekk si man nag ba jeex tag wax na la ne depuis si ali 2000 yi bu ma ñëwee si combo gi fii musuma fee joteeg nit Ibou Ba mu ne ma kon kontaa Kunkande <laughs> waaw Kunkande dinaa ko kontaak su defee mu isil ma naka lañ ko waxati xalem boobu mu tegoon 2 yi mu koy tuxloo si galet su defee mu isil ma boobu ak borom jaan bi ak ganaar so dasit it fii laay emale vidéo bi Ansumana Faye Ansou Singhaté nuyu naa la bu baax yéen ñëpp fii laay emal vidéo bi daf ma ko wax nit ñi di ma koor rek xaw ma lu xew ma dugga di ma dem ba dugga ji si tiktok boppa saaga yu ma saaga nettali si làmmeñu borom kenn waxul ma man maa toog ma lifin exactly amadou abdourahmane jigo ko ɗum ko ɗum woni probléme o abdourahmane hewɓe ɓe annda ko hoɗum woni ɗum ɗon ko ɗum ɗon woni probléme o waayi te eh, Anna Sarr ma doon kool di yëguma ko di waaw ñu bari ñu si social media bi lu nal neex nga jóg nga wax ko nit loolu lañ war a dakkal salaamaaleykum alaaji Malick Sarr <laughs> Anna Sarr buñ toogee ñu ngee waxtaan buñ toogee maag Anna ñu ngee waxtaan musuma koo gis musul maa ko gis ma ne ko amoon naa seen dëkk góor gu baax góor pa gi pa Demba Diallo Demba Diallo te musuloo maa gis musuma laa góor gi moo fa nekka góor gi moo toog foofu noonu sëriñ bu mag moo nekk seen dëkka Pa Demba Diallo moo nekk moo dëkk ñoom Anna